illallah sayyidina muhammad rasulullah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار نجي سنت يالله سن بروم ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam su naam bis pénc doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu takkoo ragal yàlla fu ñu mënti nekk te ñu xam ne ci loolu lañ mën amee teraanga àdduna ak alaaxira suñu xutba tey nag daanaka dañ koy jëmale ci actualité moo tax dinañu laal ci ñaari boros incha allah bu njëkk bi xutba bi day lal laloo ci wàllu wax li nga xam ne mooy lu dul dëgg ak li nga xam ne mooy wax dëgg ñu xam ko ci tubaab mensonge bu ñu koy définir nag wax lu dul dëgg ci islam moom mooy nit ki di wax loo xam ne méngoowul ak li doon dëgg te jamono bi mu koy wax wóor na ko ne li muy wax du dëgg tey yàlla wërsëgal ñu ay moyens yoo xamante ne pour nit ki jàllale wax lu dëgg dafa yomb ñu dem sax ba moo mensonge bi am nañu beneen tur bu ñu ko wutal muy manipulation waaye nit ñi dañuy jëfandikoo ay xarale di ci wax ay wax yoo xamante ne leer na leen dara du ci dëgg ñu dem sax ba jàppe na léegi waaleykum salaam wa rahmatulah loolu lu mu war a mën a nekk la. am dañ dem ba jàpp ne léegi wax lu dul dëgg lu naturel la nit ki war na koo mën a def te dara waraluñu ko ci ñenn ñi mooy bëggum vue bu bari moo leen ko yóbbee islam da bëggul kuy wax lu dul dëgg moo xam daf koy wax sérieux si wala mu koy wax di kaf ñaar yëpp benn baaxu ci nit ki warul di wax lu dul dëgg ci moo xam bi mu jamono bi mu koy wax daf ci ànd ak sérieux wala jamono bi mu koy wax ci foowukaay la ko jàppee comme kuy kaf comme lépp par exemple benn baaxul ci islam ñaar yëpp dafa nekk loo xam ne lu xaraam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu mu ne mooy tandiku noo leen naa leen li ngeen xam ne mooy wax lu dul dëgg ndax nit ki dinay wax dinay wax lu dul dëgg maanaam ñàkk wax lu dëgg boobu dafay dem ba yóbbeeku ci li nga xam ne mooy kàccoor noonu la wax bi tëddee maanaam mooy tandiku lu naa wax lu dëgg ndax wax lu dëgg dafay dem ba yóbbee nit ki di kàccoor te kàccoor googu mu koy yóbbee dafay dem ba yóbbeeku li nga xam ne mooy dem safara mu ne nit ki du dañ di wax lu dëgg di wax lu dëgg nekk ci nag jàppee ko dem ba jàppee ko métier ba fa yàlla yàlla bind ci aras waxkatu lu dëgg bi maanaam diw waxkatu lu dul dëgg bi yàlla enregistré ko foofu kooku kañ lay bàyyi wax lu dul dëgg mooy c'est fini pour lui noonu la nekkee itam contraire bi ndax bu ñu nee wax lu dul dëgg contraire am mooy lan mooy wax dëgg yonent bi ne dénk naa leen ngeen di wax dëgg ndax wax dëgg dafay jëmee nit ki ci baax te baax dafay jëmee nit ki àjjana gis ngeen wax ji ni mu ko riimee bële mooy tondikul naa leen wax lu dul dëgg wax lu dul dëgg dafay jëmee nit ki ci kàccoor te kàccoor dafay jëmee nit ki safara bii mu ne dénk naa leen ngeen di wax dëgg ndax wax dëgg dafay jëmee nit ki ci baax te baax dafay jëmee nit ki àjjana mu ne nit ki du dañ di wax dëgg doon ku dëggu ba fa yàlla mu bind ci aras waxkatu dëgg bi diw sa tur lay bind waxkatu dëgg bi kooku réussir na ba li koy dese si dundam ku dëggu lay nekk tey li xew suñu réew gis nañ ko nga xamante ne mun nañu ne sax wax lu dul dëgg lay taar réew manipulation bi bëri na ñàkk wax dëgg gi bëri na ñi ñu jiite sax ñuy xaar ci ñoom dëgg sax dañuy manipuler am ñeneen ñoo xam ne dañoo tuddee seen bopp ay activiste far ci côté yépp ñii lan la ñu bëgg mooy popularité am ay vues yoo xamante ne dañ leen koy fay mu jaraleen ay fausse information la ñuy joxe tey boo xoolee manifestation yi mujj am nit ki dafay manifester su amee lu ko naqari am na ci plein droit waaye bëri wan na li xew ci biir manifestation bi manipulation moom moo ko waral ay fausse information Grand Dakar mu ngi tàkk ñu teg ci maintien centre ville mu ngi tàkk teg ci maintien lakk leen sàngam ak sàngam teg ci maintien maanaam nit ku di ko def ak avec plaisir sans réflexion loolu du dëgg du yoon nit ki am na droit mu laaj mu ñaxtu waaye nag amul droit mu yàq yonent bi saa salaam daf ñoo tere yàq nit ki buy yàq dafa koy dugal ci gaalu lor dëkkandoo te boo loree sa dëkkandoo mooy nit ki gëmul yàlla gëmul allaaxira parce que ku gëm yàlla gëm allaaxira du lor dëkkandoo waaye kenn du tudd loolu nag te doo ñëw ci base bi base bi mooy lan mooy ni ñu jiite sax ñoom ñoo ñu waxatul dëgg du ñu manipuler dem ba yëngal réew mi mu mel ne sax mënatuñ koo ñoom. maintenir léegi ci yëngute ba amatuñu benn moyen bu ñuy jëfandikoo mooy wax lu dul dëgg kon manipula manipulation bi ci ñaari côté yépp la léegi kan moo ciy mucc kenn du ci mucc kenn du ci mucc suñu xutba ajuma bi passé mu ngi fekk Cité Rose ñu ngi xutba ci jamono bii nga xamante ne xeex def fi bàkkaar dafa xaraam ci jamono bii ñu nekk nii parce que ñu ngi ci zulxa zul qaada war a dugg zul hijja mi loo xam ne xëy na moom la ñuy programmé waatee wax ci tuuti comme nañu defoon àjjuma bi passé ndax lu ñu war a préparé la waaye doomu ndey mbokk jullit ñu ngi toll ci moment boo xam ne xeex daf fi xaraam tuur sa deretu mbokk jullit daf deretu nit daf fi xaraam parce que ay weer yu yàlla warmaal la depuis bi mu bindee asamaan ak suuf kuy jullit ak ku dul jullit xam na ne weer bii buñ ci yeggee xeex daf ci araam ñan ñoo doon xeex saxaaba yi ñoo doon xeex jullit ñi ak ñu dul jullit mais bu période bii jotee kuy jullit ak ku dul jullit yëpp da ngay jël weñ bi nga doon xeexee xeej bi da nga koy tekk ci bant bi teg na le pour wane ne xeexatuñu tey yamatuñu ci loolu dañuy rey sax teg ci benn bakkenu doomu aadama nit ki su ko reyee ci bànneexu bakkenam dafa mel ni aadama la rey ba ci ko mujjee juddu comme ni ko suñu sëriñ bi ñaanee. loolu bëri na de kenn mënul xam ñaa Sénégal mënul na ne 17 millions d'habitants te dañ la koy estimer environ kan moo mën a xam depuis aadama bi bu ko mujjee jur ñaata nit lañu boo reyee benn nit si sa bànneexu bakkan dañ lay attewoo comme ku rey loolu nombre boobu yëpp da mën ko contraire bi la boo dundalee nit fekk nit koo xamante ne bu lekkul dee wala bu naanul dee nga dundal ko ba mu génn ci ci ci situation boobu noonu dafa mel ne ci aadama ba ci ko mujj da nga ko da nga leen a dundal yàlla noonu lay atte ci mbiru rey ak dundal léegi ñun ñuy rey nu mu ñu neexee te dara waralu ko mooy mbiru àdduna moo ko waral mbiru àdduna yoon bi saa salaam dafa yaroon saxaaba yi yar leen ci anam boo xamante ne dañu demoon ba àdduna dafa nekk lu doye di ci ñoom waaye teewul mu leen di ragalloo yàlla wàcceel leen xéewalu àdduna yi nga xam ne ay xéewal éphémère la ay pétrole gaz ay ay mu dem ba yóbbee leen ñuy reyante di bañante di sosalante di noonante tey loolu la ñuy dund nga ñëw ci entreprise yi loolu nga fay fekk bëgg xëccoo poste bëgg nangam bëgg nangam tax da ngay yàqal say morom nga dem ci marché ba loolu nga fay fekk foo dem ci rek coin boo dem rek loolu nga fay fekk léegi ani diine ani ngëm moo tax yooyu war nañ ci bàyyi xel doomu nday mbokk jullit ñi wax lu dul dëgg du dagan ci islam ci par A du dagan ci islam ci par B bi ci gën a bonati nag mooy waxal yàlla ak yonentaam lu dul dëgg mooy lan mooy nit ki jël diine bi di ko dundee ci lu dul dëgg taxaw naan yàlla nee na te fekk yàlla waxul yonent bi nee na te fekk yonent bi waxul di tere te fekk yàlla terewul di tere te li ngay tere fekk yonent bi jàngalewu ko bii moom moom bu gën a garaaw te moom yàlla moo ci waxal boppam ci alxuraan yonent wax ci boppam tam ci xadis bu leer képp koo xamante ne mu ngi waxal yàlla lu dul dëgg yowmal xiyaam yàlla sa kanam la wax kanam gi lay jël daal di koy féetal li nga xam ne mooy sawara yonent bi ne képp képp koo xam ne waxal na ma loo xam ne du dëgg yaa ngi tàngal sa siège ci biir sawara lii moo fi nekk ñu jël wax lu dul dëgg nag def ko métier ñu dem sax ba léegi àdduna dafa am weer boo xam ne dañ ko jagleel weeru wax lu dul dëgg bu ñëwee moom dafa mel ne weeru wax lu dul dëgg dagan na ci yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla sàmmal suñu Sénégal yàlla xiir ñu ci boppam yàlla taxawuñu ba dañuy doon ñu dëggu ba fa yàlla mu binduñu boole ñu ci ñu dëggu ndax loolu rek la ñu amee texe àdduna ak alaxira aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa nawfu rahim astaghfirullah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين doomu nday mbokk jullit ñi ñu ngi ci weer bu màgg muy weer bu yàlla warmaal nit ki na ci moytandiku tor tooñ bakkenam waaye na ci moytandiku tooñ moroomam tooñ sa bakken moom mooy di xuus ci yenn bàkkaar yi ndax yàlla mënuñu koo tooñ yàlla ñi koy tooñ jàppee ne moom la ñuy tooñ wax ak naa ñoom ci alxuraan bi mu leen di di jéggal dafa ne yéen ñi tooñ seen bopp la wax bu leen désespéré ndax man yàlla damay jéggale bàkkaar yépp kon nit ki bu tooñee boppam la tooñ waaye nag rawatina muy tooñ moroomam nit ki su tooñee boppam am na fu muy jaar yàlla jéggal ko mu yomb lool waaye bu tooñee moroomam pour yàlla jéggal ko du doon lu yomb parce que il faut que moroomam boobu mu tooñ jéggal ko ba pare yàlla doog cee dugg su loolu amul yàlla dafa naan lijjanti leen seen problème fële te bu lijj problème bi lijjantiwul mooy dañuy jël say yu baax di ko jox wala soo amul lu baax ñu jël moom lu ay bàkkaaram di la ko sëf te kooku mooy ki gën a perte yow mal xiyam duñ ko def ci yeneen weer rawatina weer yi ñu nekk tey nag daanaka yaakaar naa ñu ngi ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar suma juumul dimanche day nekk séntu bu njëkk bu ñu séntoo gis weer bi bu ñu xëyee lënd dafay nekk le premier zul hijja mooy weeru aj su ko defee bu boobaa dugg nañ ci weeru tabaski yow mi yéene ne da ngay rey tabaski ngalluwaay bul watati say benn karaw amul benn karaw booy wat ci yow fi karaw di génn ci yow dootoo ko wat say wee dootoo ko dagg da ngay mel ne comme kuy aj bu armale liñ koy tere ba kañ ba keroog ngay rendi sa gàtt ba pare li gën su ko nit ki mënee mooy fukki fan yu ñu jëm ndax yàlla moo ko waatal boppam yàlla moo ne wal fajiri wala yaalin ashur mooy al al al ashuru la yaalin min zul hijja mooy fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fanu tabaski li ci gën mooy nit ki def li yàlla gën a bëgg mooy koor su nit ki mënee na woor premier jour bi ba jour arafat bu xëyee tabaski du fukkeelu fan bi du lekk ba lekk ci gàtt gi lay njëkkee lekk saagante nowul res bi la war a lekk waaye na lekk ci gàtt gi lu mu ci lekk rek moo xam graisse bi la moo xam yàpp bi la moo xam res bi la waaye na dogee li nga xam ne mooy gàtt bi ci li nga xam ne mooy jour tabaski bi su fekkee mun munu munul woor ngan la na fexe góorgóorlu woor li nga xam ne mooy arafa xëy na xutba bii di ñëw dinañ ci gën a taxaw incha allah kon fukki fan tabaski bu ñëwee soo mënee wooral li nga xamante ne mooy fukki fan yépp fukkeelu fan bi di tabaski nga dog jamono bi nga xam ne julli ji nga it ñëw rendi sa gàtt ginnaaw loolu na nga xam ne ni ñu waxee woon ci koor fukki guddi yu mujj yi mooy fukki guddi yu gën te ci biir fukki yooyu la laylatu xadri nekk jàppal ne bëccëg yi ñu jëm mooy bu- fukki bëccëg yi gën amul lu si nit ki di jaamul yàlla mu gënal ko fukki fukki fukki bëccëg yi ñu jëm yàlla tànn ci si biir fukki bëccëg yooyu benn fan mooy muy arafaat di bés boo xam ne boo ko wooree yàlla jéggal la say bàkkaar at bi paase ak at bi bàkkaaru ñaari at allahu akbar kon bés bu màgg la ban kàddu la ci nit ki di wax bi gën laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahum la kulli shay'in qadir waaye bésu nangu ñaan la aussi dinañ ko gën a yaatal incha allah si xutba biir ñëw kon ñu ngi jëm ci jaamu yàlla yu am solo buñ koy wax nag lan lañ ci gën a sentir mooy apaisement lañu soxla dal lañu soxla waaye mu nekk dal goo xam ne dal gu sax la waaye nag dal gi dafay dépendre nag ci ñu bëgg dal bi bu fekkente ne ñu jiite bëgguñu ko dafay metti bu fekkente ne ñu jiitam bëgguñu ko dafay metti kon il faut que ñaari camp yépp dañ koy bëgg moo tax boo xoolee yàlla ci weer yi même bu teree xeex sax kenn dong la ne mun nga xeex mooy ki nga xam ne toog na ñu dal ci kawam maanaam yow éviter nga bëggoo ci dara waaye nag ñu dal ci sa kaw mu ne boobaa défendre la sa bopp kon fii dong lañ ko autorisé bu dul loolu nag autorisé wuñ ko kon nañ ci bàyyi xel bu baax rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa qina adhaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa salamun ala al-ahya wal amwat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah